wàcc ci mbedd ndakaar yi fukki fan ak juróom-ñeent ci ci ci weerub mai bi nga xam ni moom la ñu moom la ñu nekk naka nga euh, jàngate loolu nga xam jël nañ ko te bu ñu xoolee fi mu ne li ñu waroon euh, sëgg mooy euh, manifestation bi nga xam ni waa F24 jàpp nañ ko fukki fan ak ñaar ci weeru mai mu mel ni ñoom fi mu ne loolu soxalatu leen li leen gën a soxal mooy 19 mai bi. xam nga xam nga gars dañu dem seen wàllu bay toog di wër seen bopp te gisuñu seen bopp même bu ñu làmbi seen bopp duñ ko daj gars yi bu ñu làmbi seen bopp duñ ko daj xale j'aime bien titre la tribune tey Khalifa Sall defendre F24 ak dialogue bi bëgg a défendre en même temps Sonko euh, attaquer f bëgg a bokk seen manifestation nangu dialogue dañu doon nangu candidature Macky Sall parce que seen kuréel moo supp kànja rencontre démb bi docteur Cheikh Ndiaye ci hmm, ak mouvement bu bees bi mu créé mais ku ne xam ne docteur Cheikh Ndiaye deretam libéral la. PDS à la fin bokk ci ñi ma respecté loolu nag ci wàllu politique ndax politique am yëpp dafa tënk woon ci wàllu politique sociale. ba amul ci commune am Djeddah Thiaroye Kaw lu ñu bëri amul mais ci biir discours yi da ngay da ngay booy jàng ci diggante discours yi da ngay gis ñoom fi ñu wutee cest à principe bi taxoon ñu créer euh, Yewwi Askan Wi comme ni ko cheikh yu mu waxee dafa catégorie man bokkiwuma ci dialogue li ma exigé woon moom la ba léegi mooy Macky Sall mënut a nekk candidat loolu mooy principe bu Yewwi Askan Wi mais mais dialogue bi fan la jëm lan mooy objectif bu dialogue bi dialogue boo ci ne boo ne waaw ci dialogue bi parce que yaa ngi waxtaanee nekku candidat bu Macky Sall ci élection yi donc dafay dafay nekk ay toogaay yu wuute beneen bi ci des mhm. mooy da ay position yoo xamante ni bii euh, dootul nekk principe bi ñu taxawee bi ñu taxawale woon Yewwi Askan Wi mais principe par parloo lay nekk féete ak Sonko contre Barth féete ak Barth contre Sonko féete ak xalifa jàngat euh, position Malick Gakou féete ak euh, Déthié Fall saboté c'est-à-dire euh, Thiala nañu waxante dëgg maag yow mënuñu nekk ci compétition bëgg nekk ay partenaire Malick Gakou candidat la Déthié Fall candidat déclaré laa la wax de Khalifa Sall Barthélémy du tëdd nelaw fii nekkul candidat ban yoon la ko mën a jaar amnistie ku amnistie di nga négocier ñoom ñëpp ñu bëgg kenn ku ne da ngaa bëgg lenn te bokk benn géew est-ce yaa ngi dégg li ma mhm. lenn la ñu bokk ñoom ñaar déjà ñoom ay ay adversaire lañ te bokk benn association parce que dañuy xëccoo ni ñoom ñëpp bu ñu validé ba ñu validé woon tey candidature Malick Gakou mhm. valider de Déthié Fall valider bu xalifa sàll pur am candidature parce que amuñ ñoom lu leen tënk dara tënk leen pour ñu mën a am candidat am nañu ay militants structuré nañu donc ñu bokk en même temps ci biir Yewwi Askan Wi nga xam ne seen xeex bu jëkk mooy fexee euh, dominer Macky Sall comme ni ñu ko defoon ci élection locale yi élection législative yi mais xeex troisième candidature mais est-ce que daañu talati xeex troisième candidature bu ñu eggee ci mois d'août ñaari weer moo ci des ñu commencé parrainage kenn ku nekk dem cherche di sa parrainage bopp bu boobaa ana existence su Yewwi Askan bi est que bu ñuy wuti seen parrainage bopp Yewwi as benn bokk yaakaar di wuti parrainage est-ce que daañu tal xeex troisième candidature Macky Sall mais fi mu ne Mansour dem ba troisième candidature bu Macky Sall nekkatul waxtaan bi ñu ci bari kenn ku ci nekk ci ci ci waa Yewwi Askan Wi yaa ngi xool peut-être loo xamante si ni moo lay jëmale kanam yow ci li nga bëgg mooy ñàkk nawloo askan bi mm-hmm. lan la ñu woon askan bi Macky Sall mënut am ñetteelu mandat ku bëgg wax mu neex ku bëgg wax ñu déglu la discours boobu ngay nii bu soob yàlla du fi nekk candidat ñoom ñëpp loolu la ñuy wax mais bu nekkatul kon seen soxla parce que am na leneen lu nekk seen soxla moo tax ma ne ñuy politique faw ñuy bàyyi xel nit ñi mën nañu xalaat. ànd ak ñoom di xool ni ñuy doxalee. cest à euh, rencontre démb bi li ci laxasu boo bëri dafa am ñu ñëwoon pour seetal seen bopp dafa amoon ñu ñëwoon pour dafa amul ñëw pour lëndëmal Sénégal yi di coow amul ci coalition bi daf ci am ñu ñëw sincère dëggu ca la ñu nekkoon. ci loolu laa bëggoon ñëw ñëw ñëw Mansour sortie bi euh, Birahim euh, bu ñu xoolee li li ngir dëggal li Mansour wax leader yu yeewi askan wi c'est comme si dañu gis ni euh, fan yi ñi ngi ñi ngi ñi ngi gis ni ku nekk yaa ngi yaa ngi génn di wax que ni yeewi askan wi tas na léegi ñoom dañoo génn démb pour peut-être rassurer nit ñi ci loolu. waa non c'est tout à fait normal parce que dañu nekk dans un moment politique. ils veulent montrer à l'autre côté. que ñun suñu diggante dara xew fa. loolu lañ bëgg wane. parce que tamit dafa am engagement bu ñu jël ci kanam population yi. donc ñu wàcc boobu lay engagement. mais pourtant tey boo xoolee journaux yi. du question ay journaux pro pouvoir de. mais journaux yi tey lan lañ fësal mooy ni démb Sonko wax na tudd leen ñoom. voilà. te pourtant la veille. ku mel ni Barthélemy Dias bokk ci ñoom donte bokkul conférence des leaders mm-hmm. mais leader am di Khalifa Sall toog dem mu ngi ci conférence bi. Mm-hmm. juñu na ba tudd Ousmane Sonko. ça veut dire que li ma waxoon bërki démb mm-hmm. démb moom laay waxaat. gis nga ne ñu àndandoo ci sincère am na ci ñu ci sincère. ñoo xamee ni seen objectif boobu moom lañ bëgg atteindre dañ koy atteindre. ku ci mel ni Maimouna Bousso doo ñëw ne ni kii. dese na sincérité. parce que wutul dara. mais ñooy dañ lay sincère ba fii na ñëpp bokk waaye bu ñu waree faas dañ faas ñun ñi bokk mais munu Bousso dafa wax démb benn wax boo xamee ni daf ma sama marqué te muy lu am important ci coalition mu ne ñun bu ñu gis suñu deret ñun ñuy tuurante deret suñu suñu biir bu tuur deret di am nañu tuur deret euh, suñu adversaire wala suñu ku ñu jàkkaarloo di Macky Sall mais elle a raison mais est-ce que principe boo mu doxee moom la ñeneen ñëpp doxee ci biir. Mm-hmm. je donne ma langue mm-hmm. mais du ma ci waatal kenn gisa mbirum politique. Euh, Thiala. Mm-hmm. du ci waatal kenn quoi que ce soit. ak li fi jot a xew lépp Lamine Senghor ñu ñu jeexalee xibaar yi ak mbirum euh, ay Mbodj mi nga xam ne moom moo nekk présidente mouvement alliance nationale.